ak njiitu réew mi di président Macky Sall ci euh, conseil des ministres bi nga xam si euh, da ko daal di euh, jiite moom nag xamle na ci jàmm joo xam si kon bëgg na ko ca diwaanu Casamance rafetlu itam li nga xam si kon moo fa daal di mujj am népp xaatimub déggo jëm ci jàmm ci nguur gi ak faction bu jàkkaay loole kon mu daal di koy wax ci conseil de ministres ni tey jii tamit la gën a dogg ngir jàmm daal di am foofe waaye itam wax. ci euh, jàmmi réew mi mu ni njiitu euh, xalif général des Mourides yónnee na ko ab délégation ni ki euh, démb aju nag ci kàddu yu mu yëkkati woon ci korité waaye itam mu gën a bay waaram jëmale ko ci jàmmi réew mi njiitu réew mi di président Macky Sall ci conseil des ministres bi nga xam si da ko daal di jiite moom nag euh, xamle na ca jàmm joo xam si kon euh, bëgg na ko ca diwaanu Casamance rafetlu itam li nga xam si kon moo fa daal di mujj am népp xaatimub déggoo jëm ci jàmm ci nguur gi ak faction bu euh, jàkkaay loole kon mu daal di koy wax ci conseil des ministres ni tey jii tamit la gën a dogu ngir jàmm daal ji am foofe waaye itam wax ci euh, jàmmi réew mi mu ni njiitu euh, xalifa général des Mourides yónnee na ko ab délégation ni ki euh, démb aju nag ci kàddu yu mu yëkkati woon ci korité waaye itam mu gën a bay waaram jëmale ko ci jàmmi réew mi